neex yàlla waaye MD parfois moom. waaw tuuti wax te yàlla rek day wàcc raay bi wàcc tali waaw loolu la non loolu xanaa xam nga loolu mooy inconvénient rax. ah da da leen baaxul. yii day wàlle. day wàlle da lay yàq. Hmm? kaa contact. loolu la. <laughs> nga am benn léeg-léeg nga nattu la am benn xarit boo xam ne. wala nga dëkk foo xamante ne nii moom saa yi. Hmm, yàlla xam doy na. nit dafay ñëw jiix fa. nekk ah. yàq jikko yi ba fa waxatee lu bon tudd leen. Eh. fekk du waa dëkk ba. ndeysaan lu ñu wax tudd leen ci. rax rax gala. looloo dal kii ma ba. Hmm. looloo dal waa régie bi. waa dawul dal waa régie waa dal waa géej waaye tamit. déedéet déedéet <laughs> bàyyi yooyu nag bàyyi bàyyi yooyu ngay def. géej waaye kenn ak moom. Ah. géej waaye kenn ak moom mu ngi dégg ko xalaat ak ay éphéméride. géej waaye kay. <laughs> géej waaye day nag gis nga moom la may envoyé nit gis nga asma damay teel a yokk ay éphéméride. mantu c'est que mantu waa matinal bi yëpp dañu la àndal si télé bi kaay. xoolal Mantoulaye kaay waaye daa am lu ma lay wax kaay dama la ko ñaan ngir yàlla de grâce de grâce xool ñu laa la koy ñaanee Mantu. non non day liggéey. Mantoulaye ah. Mantoulaye day liggéey <laughs> Mantoulaye day liggéey bàyyi daa am lu ma lay wax de xoolal dafa am lu ma lay laaj ñoo ñu bëggoon def euh, euh, grève de la faim bu dinañ ko def. <laughs> ñaan ñooñu bëggoon def grève de la faim prisonniers yi. waaw. Hmm? jotuñu la mais. ah ñoom nee dañoo sonn de. nee nañ en daal li ñuy daj foofu metti na longue détention préventive lañuy lañuy kii la ñuy jàmbat foofu kaso bu lan Tiwaawan. kaso yi daal te ñoom ñu si bëri ay jigéen lañ seen tey sëy yi tas na. ndax liñ leen fa tëj te kenn àtteewu leen. LP dugal nañ ko kenn mayu leen ko may. mani nañ ko waxtaanee après. réew mi màggat mu feebar la. Hmm? màggat mu feebar. yaram ak màggat la. secteur boo laal day métti. foo sa laal day metti de. waaw boo leen déggee nag ñuy wax sur le sur le mm. papier di théoriser mm. da nga yaakaar ni genn Sénégal quatre vingt pour cent yi ña nga àjjana man boo toog ak benn ministre ngeen di def émission wala seen administrateurs yi wala seen seen seen seen DG mm. man damay waaru ci yàlla sax gars yi bi la jàppee euh, monsieur le maire ba énuméré la mm-hmm. ay projet wu Macky Sall ba bàyyi mais da nga Sénégal est-ce que fii am na jafe-jafe taux de taux de chômage bi est-ce que nekkul ay ay ay cinq zéro du cinq ay zéro virgule quatre pour cent ngi xëy. ñëpp ngi xëy. naxaate. Eh, ak ñoo mën a de def ay kii de. xaaral ma ñëw jàkkaarloo ñoo mën a estimé de. xaaral ñëw jàkkaarloo. na ko mën a wax ne ma kaña la monsieur le maire di def njaabu Abdoulaye Wade. waaw njaabu Wade di ku coro saar <laughs> de. njaabu coro saar Wade sax Wade moom man sax Wade man ay mbiram naka jekk ci laa man ni nga ko wane fee mu naan. kon <laughs> Mantoulaye da lañ la defal noonu. ah wane nañ ko fi léegi nii nii rob ci ginnaaw nii. waaw wane nañ la nga toog nga taxaw noonu. c'est que Mantou nag da nga. mel ni kuy diw da nga war di ñëw fajar nag de Mantou. mel ni kuy yenn <laughs> kanam bi dafay biir dafay biir bi fajar gi. ah mu mel ni moom la moom laa bëgg waa kër gi gis ka Mantou. <laughs> Eh, wuy ma lu mu doon. looy dékkee monsieur le su gaa yi gisee big bi rek tiit. tey ko non Macky kay léegi ni muy signé noonu laay signé. tey koy retiré ci groupe WhatsApp bi te du Idriss Seck tey day dem conseil économique. waaw léegi dama xamul ndax Mimi day ñëw wala. non non non non Mimi ñëwul. mais mën na nekk invité surprise. wuyu tey damay xool ñan ñoo fay dem ba nit waa ne dañ laa invité ba nga dem fa da <laughs> nga bokk ku fa dem ma ma signé décret. <laughs> ku bokk ci Idi da nga bokkoon yi da nga dem. na ba nit dem fa. retiré groupe WhatsApp. lool loolu léegi la ñuy xaar ku fa dem dinañ jàpp ne da nga cautionné li li li li def. opération raxas. big bi daal ak Idi te dama ko indaale seen. ate maître baax na. non. non boobu laa mënut a mën. xanaa Djibril <laughs> <laughs> non man fii laa jékki-jékki rek daanu. xëy na ci biir waa. <laughs> lii mënuma koo muñ. jiw daal boobu bii lay maye de. monsieur Aidara. vous savez nous waalo waalo. ndeysaan. non ci <laughs> la de. bari na sutura. non mais sa ngi bëgg a rey gars fu mu nekk nii. yàlla yàlla dolli sutura. kan lañ vaaroon te ba gumba la xaw ma. non. Ah? moom lañ vaar dem. ba de xaw ma ko créé waaye mere nañ ko sama mbokk yi politique sama fit bi bu ma tëddee bëgg dama leen di xalaat non suba ku ñuy vaar sama fit bi nii lay def mais boo koy wax dina xam lu muy wax non boo xamee nit ku ñu vaar boo koy seetaan boo dajee jabaram wala doomam kersa uy <laughs> seen yaram bi pay si ban kersa boo waree ñaar yi di koñ bu nekk la ñuy dugg <laughs> ruq bu nekk dinañ fa dem ndax vaar prox ndoll yi ñu mësuloon jaar ruq koñ yi ñu mësuloon jaar dañ fa dem bu ñu dem marché dañuy bàyyi ba timis fekk jaaykat yi laal tamit dañu waxante dëgg nag. non. ah booy ni koy monté moo garaaw. dañ koy tegal de. tim nga taxaw naan dama ne Macky Sall laa bëgg mbooloo mi ngeen ma liggéeyul réew mi adduna du yàgg ñun bañ ànd moom rek nga gis booy monté. nga naan lan. wax ji daal di soppeeku. nga ciw booy bu ñu nee arbitre yi nii. doo sifflet non sëñ tudd leen rës ñu indi sa bu bees bi. oui vraiment. nous avons ñu liggéey ko. <laughs> un président euh, vraiment un visionnaire. koy wax sa yére bi pay un euh, démocrate. un un un <laughs> nous avons rencontré euh, un homme. loyal. loyal mais très ouvert. Euh, engagé déterminé un travailleur. travailleur engagé quelqu'un qui aime son pays. ndeysaan. voilà euh, un vrai patriote. Mm. Euh, fekk yow yaa ne woon Macky nañ ko door bal. bëggul réew mi kii du patriote jaay avec l'Union européenne. <laughs> quand on a euh, c'est après lecture. on a su. ndeysaan après lecture vraiment. kon bien avant lecture la woon. il a pris la bonne décision. la ba noon la mère aussi. Euh, <laughs> yab yab yabbi la. ak ñoo salté. wàccu lekkaat. lii. <laughs> yàlla nu yàlla suturaal. la <laughs> nee na nee na jaxeer nee na vaar mi ngi doog a neex ak fii réew mi tool barki yurinti jaxeer vaar gaa ngi mel ni ñëwal yàlla yàlla su bilaay wallaahi yéen nii am na ko ci ndoxu lak de di laal ay sangoor suba teel gi rëg jëg gi jëg rëg jëg jëg ba ci sëla yoon ba waaye ñëw kenn xamul la la le témoin yéen kaay ñëw a ñun ci <laughs> uh-huh. monsieur le maire wàllum immigration clandestine. lu mu wax. pré ah wax na ca de gars yi doon xaar tontoo wax de. ah Macky Sall daal en tout cas lu jëm ci wàllu wutal gone yi liggéey war a boog wutal nit ñi liggéey. day taxawal conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. eh kon baax na démb la ko xam ne ci conseil. des ah, ministres kon eh, baax na baax na baax na. dégg loolu. baax na baax na loolu fa jëriñ ñëw ak ñun ci. amit jot. mi mee ngi ñëw. mi mi ngi ñëw mi na fi mu nekk nii nag ëllëgëm la jàkkaarloo. war a defante. waaw ñu ngi nii de. tekki musóor gi takk ci di ndigg la wax loolu de ëllëgëm. Hmm. ak avenir politique am. wal fajiri nañu. Idriss Seck nag tey lañ koy samp. tey waaw. tey day conseil conseil économique social environnemental dana mel ni keroog ba pël ba ñu ay maam mi ne noppi. waaw mii bu jékki-jékki woon na tël. kan langa kan mi mi invité surprise. ñaq ñaq yu bari. boo bëggee dégg dëgg nag wuy ma góor ñu bari ci réew mi ñemewuñ ko. moo ñu ko di. Moussa Diagne cité kon dana fa jàpp ñàkk rek la ñuy def. mimi ni mu siwee moo ragallu. ñemewu ñu ko rek premier poste ministre de la justice ak trac mu tombeloo mu taxaw rek fas kanam bi. taxaw rek. aj bu la wooyee boo décroché ne allo mu ne la wooyee eh, allo. nga ne ko waaye ah, eh, grand na nga def <laughs> man la sa tata mimi. <laughs> lii. terminé yéen a kaay mu sële. dinaa dee rek. gis nga ko conseil économique baa ngi nii. Euh. Mimi Touré. mi doon léegi nag moom la ñuy toxal. moom la ñuy toxal. voilà. Mimi la traqueuse traquée. ndeysaan mi ngi nii de. quoi yeewal sa moom waaw. waaye feebar bi nga xam ne moo am ca caaro yi. lu ëpp mhm. juróomi téeméer ci ay doomu aadama dala nekk. Mhm. gis nga Moussa Diakhaté nee na opposition bi ci boppam gis nga ko. Mhm. opposition bi ci boppam moo wóolul kenn ci opposition bi. ñoom seen ah, lii xew nii. xam nga kër gu bëri ay tóob. ay nettalikat ay yëddukat. mais kenn du wóolu kenn. opposition bi dajale rek. kenn du wóolu kenn Cheikh Matar Akim Diop. président mhm. mouvement M3D. lu ma na mooy nekk cinquième président wu réew moom mi wax loolu am na ci droit. am na ci plein droit kay. waaw waaw mais si maa ngi lay nuyu. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci di yow Khalifa Sall ak Ousmane Sonko. lu mën a ne la. ngir mani gisoo Momar Diongo xanaa. nu ngi koy toog nee na kenn du ca perte. ñoom ñaar te walaay bu ñu lëkkaloo danañu faagaagal waaj. danañ faaga waaye yow. gis nga bu diis. transhumance gi ci boppam du la indil dara. au contraire. ah tonton tonton transhumance. oh elle te crée même des ennemis. ah waaw. xanaa xam nga ay noonu rek la lay wutal. mu ñëw. Kébo laaj ko toog xam ci dara. dégg nga source a monsieur le maire ñëw ngin ci jàngoro jaa ngi nii. feebar bi mais lii nag doy na waar. lu jege juróom-ñaari téeméer ci ay doomu aadama yoo xam ne jàngoro ji dugg na leen. fi mu nekk nii daal gis nga Rufisque mbir ma yegg na fa. fanweer laa fa dégg. defal attention de. monsieur mm. le maire. yegg na fa. Caaro mm. yegg na fa. Mbaaw yegg na fa. Bargny yegg na fa. Tubaab Jalaaw ak yéen. mais num teeru bàyyi soo gi rek la jàngoro ju bàyyi. Caaro mm. yi moom ñoo lekk-lekk ji moom. Caaro yi moom boo bëggee dégg dëgg ñoo lekk-lekk ji reconfiguration politique bi nag. Khalifa Sall fi mu nekk nii ak Karim Wade luy seen taxawaay place. Khalifa waaw waaye Karim ba sa sa dowaar nag moom wax fa dëgg neex yàlla. Karim day Karim day boo bëggee dégg dëgg. daa wala moom wax fa dëgg neex yàlla dafa doy. Karim moom kenn xamul lii lan. waaye Galatal ji. te ba mu ñëw. te boo ko waxee kat Karim si mer. wax nan mer waaye nag nañ bàyyi ba mu ñëw yóbbante galgal ci boppam ma ubbul làmb. bëri kay ki nekk ci arène bi. ah waaw baax na. Cheikh Yérim Seck tam li mu wax léeg-léeg tam day xaw a pour nga weddi ko tam day xaw a miti. waxante dëgg nag. lii quotidien ñëw ak ñun ci Macky Sall nag fi mu nekk nii génnee na bagage yi gis nga waa Greenpeace euh, waa Greenpeace Afrique. Mhm. nee nañ européens yi Europe dañoo bëgg jënu Sénégal bi ba pare te bëgguñu doomu Sénégal yi. suñu ah, loolu mooy la. suñu jën bëgg suñu jën yi ba pare te ñoom bëgguñu ñin. billaay ñin ñi moom jën yi. <laughs> moom la leen soxla yàlla sàkk jën yi pour ñin. ndox mi di def ci. <laughs> ndox mi andi feebar. dégg libération yéen a kaay ñëw ak ñu ngi ci Barça ak Barzakh ji. ñii dañoo bloqué ca Maroc. 256. Mm. ak ñett ci ay corps rapatrié nañ déggal Cheikh Fall li mu wax nee na ca Ndar juróom-ñetti di sori dañoo réer mm. te ay soxna la ñu bàyyi seen ginnaaw te ñooñee dañoo ëmb cey waay cey waay dégg nga feebar na Mbuur ak Joal ak Saint-Louis mu ngay law de waaw man nag dafa mel ni moom géej gi rek géej gi daal la singili comme waga waaw kay président Macky Sall évidence nee na Macky Sall démb wane na carrément ne kontaanul de ci conseil des ministres très bien loolu ñoom la rek fëgg na ci table ji les éco yéene kaa ñëw ak ñun ci feebar bu doy waar baa ngi nii xooli picc yi kar kanam gi lay jël faxas yàq ko complètement rawatina tuñi dégg nga ay picc yoo xam ne maanaam daytaal yi day gën tasaaroo. lépp lay tasaaroo jàlloo yaram soxna Aida Diallo ngi nii. lu soxna Saybata dara moo ko invité ca weekend bi. soxna Aida Diallo ca Thiès. moo koy invité waaw waaye nag jug dem la def de jug dem. waaw bu simple jug dem. dégg rek. Hmm. dem la def de. waaw kay. kese la solo yéene kaay ñëw ñun ci. li ñu am ren ci tonne ci gerte. Hmm. nee nañ mësuñu ko am. bay bi Khalifa Sall ndax mën naa nekk candidat élection présidentielle waaw wala déet. loolooy laaj bi benn professeur université Gaston Berger na waaw. ah na. mën na nekk de. ah oui. mën na nekk article l baa ngi noonu ak 31 bi foofu la werante bi ne. ministère intérieur 98 ñuy dugal ay bagages ci seeni loi xam nga tappale ak ak ak ak ak ak ñàkk démocratie fii la commencé quoi. yow ngay bàyyi ba élection jot constitution bi am lu mu wax ci candidat yi ngay indi la code électoral yow ministère intérieur indi fa ay coppite. boo diyee léegi di lalli sa article euh, sa euh, article L trente et L léegi bu dee dañ laa condamné juróomi at bu juróomi at yi jeexee doo mën a nekk électeur yëfu tapale Macky daal ku mu bëgg nga bokk ci élection nga bokk ku bëggul wuy ma wuy ma football tey <laughs> Macky nit ñi Sadio Mané mënaluñ ko dara dégg nga le quotidien yéene kaay ñëw ak ñun ci mm. feebar bu doy waar bi xew ca caaral innocence <laughs> tap Ndiaye nag nee na immigration clandestine concentration nationale dana ca am waaw kay waaw kay boo yoree kuy nag ba mu màgg balaa mbëkk kenn yow lay njëkk a mbëkk ku mbëkkee foofu Mimi ak Moussa Diop ak Moustapha Diakhaté danañu mbëkk Macky <laughs> ñett ñi doon seen coalition day am dara ma ni ñi ngi nii ñi ngi nii ñi ngi koy eh, ñi ngi koy togg de seen coalition day koy togg de ñi ngi koy togg dégg mhm. critique yéen rek ay ñëw ak ñin ci Mara Mara Mara ngi nii maaraa ngi ñeme aaya maaraa ngi nii ma nga ca kanamu mimbar ba jàkkaarloo tey mu ngi nii war a yëkkati ca kaw dégg ay waaw kay enquête yéene kaay ñëw ak ñun ci makki Sall ndax yàlla nag wax na ci wàllu immigration mm-hmm. clandestine gis nga kuréel googu nga xam ne daf koy taxawal pour wutal ko nay liggéey bu décembre xaajee mm-hmm. ci la mbir mi taxaw yàlla baax na lan moo tax ba Ablaye Wade li mu amul woon Macky am ko mm-hmm. opposition bi maanaam direct ñu sala dikk tey ni Idrissa sekk def ba ñëw ànd ak Macky waa réew mi génn opposition coalition yi jàkkaarloo nag Macky tas makki Sall bàyyiwul sax yi mbokal hmm. waaye Macky yaa mën a tas mooy Sadio ci politique bi non Macky yaa mën a tas li maire bi naan Macky yaa mën a tëje mais kii moo mën a tas Macky xoolal idi coalition opposition bi yeneen coalition yi doon dal ci kawam Macky Sall ngi nii bàyyiwul sax ñi ànd ak moom. Hmm. ñi am ay ambition ñi doon làqatu mu démasqué leen les ambitieux prétendants ñi ñuy njort ne. ñëpp hmm. ñëpp ba nuppi homme politique yëpp ñi ngi riir ne wutali Macky. tey ate kondo kondo. yëpp xale yi di de waaye nag Macky Sall ngi créé opposition bu radicale incarnée par des jeunes. Hmm. waaw. en même temps taxamu ci dara. jusqu'au boutiste lañ maanaam ñooñu dañuy dem jusqu'au bout. ñoo xam ne ay bañkat te ñooñu nag boo sàgganee rek maar di taali. Hmm. mën nañ koo gaañ dégg xam nga différence am ak Ablaye Wade. moo di. ni ko Coro Sarr daa yéeme noonu. ba fa Coro Sarr. da doon dimbali bay dimbali ay opposants. parce que ñi ma joxe ngi nii le. ay joxe. ba teg poste vice président ci kaw taabal. xamul enveloppe bu kaki. gis nga lii ñu ngi nii. ay valise laa joxe dégg kii kii kii nag kii moom. code bi code bee ko yaa xam. wala sa problème mu code waaye moom loxo bi am code. waxuma sax loxo bu code sax waaye moom moom moom daal moom daal ñu ngi nii. ba yàlla xam doy na. waaw loo a wax. waaw moom daal ñu ngi waaye daal na jàpp ne suul gaz du ko tereexe. te te lan. pétrole bi ko fa te troisième mandat yi dañ koy tere ci tey moom tey moom tey. ay boobu bàq. tey moom njaabu mer laay njaabu may ñibbi. njaabu lan mer. Ah, tey tool jarul mer. Ah, jarul mer waa déet waay. non kii. waa tamit jarul mer. wax ak moom sax. jarul mer. nañ négocier ba mu jàpp date rek. ci àddina. eh pour élection locale yi. da koy jàpp par force. dañ koy tëgg par force. ci waxtu wi kay laa wax. dañu ko dinañ ko tëgg élection yi. na koy ak ba deux mille trente cinq dina ko tëgg. dund tëgg ñàkk. Eh, tëgg. ña ñàkk dund tëgg tëgg. kon dafa lu tëgg ko. Macky moomul réew mi.